الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي دنيت ربي بمدحتي شفي في المنطق البديع أبغي يا محمد دنيت ربي بمدحتي شفي غوث السمداني برهام ولي الله غوث السمداني برهام ولي الله إن لي مقالات في غوث أوقات صاحب المقامات برهام ولي الله voilà jërëjëf mbokk téléspectateur Kossy TV ñu ngi am beneen yoon kàddu contentement bu baax a baax ak ñi nga xamante ne nii noonu la ko Kossy TV di defee waxtu wu nekk rek defe na Mawlana Cheikh l'Islam Alaaji Ibrahima si Baye mooy koo xamante ne nii international la si biir réew mi ak si bitim réew gox yu fasantikoo la nit ñi di jógee ko di teewee mawlid bi nga xamante ne nii dëgg-dëgg ñu ñëpp dañuy fooglu ñëw fekkee si Cheikh Mouhamadul Amine Baba mi nga xamante ne noonu lay taxawee Mawlud bi moo tax ñoom it xeet bu nekk tey mu ngi fi démb dalal nañ kenn waaye tey jii dalal nañ Nigeria dëgg-dëgg si beneen xeet boo xamante ne mu fas yéene wax ak ñun si wàllu pulaar waaye nag yàlla dimbale nañu ba Kossy TV moom ay ndoom dafa yaatu yaatu goo xamante ne nii fu ñu ko waxee si pulaar rek defe naa dana am ku ñu ko traduiral si olof sañ bi li ñu bëggoon a wax ak moom rek mooy gannaaw bu ñu jógee mu présenté wax ñu fu mu dëkk ak fu mu jógee ko ak lan moo ko boole ak Mawlana Cheikh Ibrahim Awi ko mbaɗen addumu addumu ga ko kaale onon kaale pular tawma anon ko je cheikh ibrahima ko pular tan minan firtodiri jolf jolfo alhamdulillahi rabbil alamin min ibrahim cheikh maazu biyeji mina Mediwani, diwani mi ibrahim Hanne min madina bayi ignas radiallahu annum eminon jama'aare amin jama'aare Najeriya. nee na moom ñëw na fii ci jàmm ak salaam mu ngi nuyu mbokk yi mu fi fekk yëpp mbokki senegal mbokki lislaam yëpp mu ngi leen nuyu si nuyu bu di leen nuyu si nuyu bu lislaam nee na ñëw na fii fekk na kër kër Cheikh Ibrahima Niass nee na tool bi yaatu na lool ba fu mu yem kenn xamu ñëw nañ si jàmm danañ ñu ñaanal leen ñu delluwaat ci jàmm ak salaam nee na ñoom loolu moo leen yëkkati. ngari Madina Baye Niass radiyallahu anhum min gardohi jama'are nijeria min gari ziyara cheikh ibrahima radiallahu annum min gari min data barke cheikh ibrahima radiallahu annum minon jama'are nijeria min giya minon minon jeeyi cheikh ibrahima radiallahu annum waaw nee na mbokk yi ñu ngi siyaare waat ñoom bu baax di joxewaat seen wàccuwaay bu baax a baax parce que ñoom nee na Missirah nekk ñu ngi say dëgërlu bu baax di sàkku ñaan bu baax Cheikh Ibrahima parce que lu mu leen liggéeyal foofu nee na jéggi na ba nga xamante ni ñoom Sénégal daal amul fu mu yem waaw minon jama'ar Najeriya min arti min kokki Cheikh Ibrahim yonkiji amin gaba min gala kowa Cheikh Ibrahim min jogi radiyallahu anhu waaw nee na mbokk yi daal Cheikh Ibrahima amul fu mu daal amul tànki gannaaw tànki kanam rek lay am na waaw nee na ñoom dem nañ ci ba jeex tag waaw lu am lu ne rek Cheikh Ibrahima moo leen ko gënal minon jama'ar Najeriya min dillohi min gadi balɗe joyi dow laawol emin pukko emin ɗano emin tokka e ladde laawol wooɗi laawol wooɗa fa hannde min jibbike madina bayi ibni asd radiallahu anhu min jetti cheikhu ibrahimu radiallahu anhu waaw nee na mbokk yi moom daal li am Cheikh Ibrahima moo gënal dem na yoon wu nekk daal Cheikh Ibrahima rek lay gis gisul leneen lu dul yoonu Cheikh Ibrahima moo gënal lu ne ñoom dem nañ si ba jeex tak te ñoom luñ si am jël mino jamaare Nigeria mino jamaare Mina Niger jama'are kwara state ka fo jama'are najeriya fulaku najeriya hane min garohi badina bayi in yas radiallahu anhu nee dem na si pays bu nekk pays bu nekk gis na gis na lu fa nekk nee na moom daal pays bii mu ñëw nii moo ko gënal pays yu mu dem yëpp parce que pays bi amul frontière to alhamdulillahi min jetti allah min jetti allah min jetti allah inna fika man jaati summa fika halati fika kulla ayati barhamu waliyullah قد علوت من قبل كيل فيك أقوال منك قيل والقول برهام ولي الله كنت أولا أزلا ثم مرسلا أصلا كنت خاتما أهلا برهام ولي الله شيخ كنت ما كنت ثم قلت ما قلت فقلت كل ما قلت سيدي ولي الله من يموت يلقاك من فناس يرآك من ما أواك دائما ولي الله أنت أنت رباني ثم أنت سمداني كيف أنت تجاني أحمد ولي الله منذ كنت من قبل مبدأ فلا قبل منك بعد ولا قبل لله ولي الله من نداك جدوانا مستأتيت آمنا لو أبوهما فينا بل أنت ولي الله يا مراد يا عين يا جمال يا سين يا سماء يا بين يا مدى ولي الله جيتنا بتوحيد فيك كل توحيد لم يفز بتوحيد غيركم ولي الله برهام ولي الله برهام ولي الله إنياسي ولي الله من جتي برهام إن جتي برهام برهام إن جتي برهام إن جدي إنياسي بر يا ولي الله اللهم صل على سيدنا محمد ولقال خاتم واسمنا شيخ إبراهيم رضي الله عنه من غير زيارة مدينة باي إنياس جاءهم من جاهم كوسي ممشو الفيضة كوسي شيخ إبراهيم رضي الله عنه أي النبي هتري هتري وأجابره بالكوسي وهو بدأي باتين وأبصره بالنور والقلب لا مقل شيخ إبراهيم رضي الله عنه بلا كوس بلا خرطوم ليلا وإنني إن شاء الله من جهة كوسي من غير زيارة الشيخ إبراهيم من غير زيارة كوسي بعد من جهة كوسي من جهة لايبه الشيخ إبراهيم ريما رضي الله عنه جاءوا من جهان زيارة جولر عيد الشيخ إبراهيم رضي الله عنه من جبع جولر عيد الشيخ إبراهيم من جهان جانير ده الشيخ إبراهيم رضي الله عنه بعض من جهان الشيخ حسن ديم رضي الله عنه من جهان السيد علي سيسا رضي الله عنه من جهان زيارة شيخ تجاني إمام حسن سيسي radiallahu anhu mi ganto khalifa cheikh ibrahima ignas ala iɗlaƴo fo duniyaru cheikh tidiane ignas radiallahu anhu kanko woni beero amen to makko min jippi kanko madadi amin min gaddi cheikhuji amen kabiru ibnu oumar zango kano ala kanawi jon kabiru joni o ummoyke daga lagos o jippoto dakar yaago awa bi o jippoto kawla kawlaka inchallahu taala parce que ñëw na fii nee na siyaare na Kossy siyaare na fu ne ñoom dem nañ fu ne li wër Kaolack gépp nee na siyaare nañ ko bu baax a baax baax ñoom daal lu toll ni Kaolack moom amuñu feneen fu ñu koy fayee parce que dem nañ Kossy dem nañ fu ne lu diwaanu Saalum gi yëpp lañ wër parce que ñoom Cheikh ibrahim moo leen ko jaral nee na na sëñ Assane Cissé siyaare na mu maam Baay yëpp ñëpp ñëpp fu mu lim daal day juum parce que nee dem na ba Dakar moom mboolem fu mu xaddam nekk rek mu ngi lay jox wàccuwaayam di la nuyu bu baax nag di leen jox ne fi mu ne bàyyi liggéeyal na loo xam ne ci Sénégal moom amul fu mu yem amul frontière Ah, voilà ah, jërëjëf euh, sama caméraman yi waa kër dëgg-dëgg tey kontaan nañ bu baax a baax di am contentement fi nga xamante ne tey mu nekk euh, juma Mawlana Cheikh Lislam El Hadj Ibrahima Niass Baye radiyallahu anhu dëgg-dëgg mu nekk euh, juma joo xamante ne nii tey fes na dell waaye fii ba gàmmu gi di jeex ba gàmmuwaat di jeex Ghana Niger Amérique Europe Asie fu ne Indonésie ni fu nekk rek nit ñaa ngi fay jógee ko pour ñëw si Medinatu Cheikh Ibrahim dëgg-dëgg mu nekk jëmm joo xamante ne nii kenn mu mënut a xam kéemam waaye tam kenn mënut a xam mayam fan la yem moo tax dëgg-dëgg tey kontaan si ñi nga xamante ne nii mooy bàyyi ak ak ak euh, bi ñu xool nan la euh, ñiy dundee faydu bi waaye dégg ngeen ni mu ko waxee si gàttal si tënk Seydina Aliou Guèye maanaam mooy ñoom euh, li am ni Medina Baye lu yem ni Kaolack lu yem ni Koosi lu yem ni Taïba ak bépp koo xamante ne nii mu xaddamu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass la dëgg-dëgg ñoom gëstu nañ ko waaye tey gannaaw bi ñëwee fii tey si Cheikh Ibrahim amatuñ leneen lu ñuy bëgg amatuñ leneen lu ñuy ut amatuñ leneen lu ñuy sàkku dëgg-dëgg mu nekk loo xamante ne nii euh, TV li mooy taxawaayam si liggéeyu gàmmu gi si biir réew ak si bitim réew xanaa ma jox ko micro Kossy TV rek mu jéem a tàggatikoo ak euh, soppe yi ñëwoon dem Nigeria nejast neja kaw mina helkota kaftal Abuja mino woni jama'aare himɓe mina aymi noon mi fof min garo himɓe neja state jamaare leydi oyo state leydi kwara leydi abiyekuta leydi yoruba gaba ɗeya min fof min garohiri ziyara cheikh ibrahimu radiallahu ɓe hoɓe tokko min gaɗa ziyara cheikh ibrahima min eela ɗiɗɗo ka ɗo haala duniyaru ma yiika ano himɓe duniyaru in on yiika min woni ibrahima me diwan ibnu cheikh maas beji nee na ay Yoroba lañ ñu ngi kontaan bu baax ñoom it Missirah lañ jóge mais Nistig lañ jógee dëkk bu ñuy wax Nistig ñu si des ñëpp ñi mu ànd ak leen ay waa daayira lam daayira lañ ànd naag ñëpp ñoom kontaan nañ bu baax a baax parce que Missirah lañ jóge ñii ay Awsa lañ ñii ay Alpura lañ waaw. waaw euh, Fatiha Saat Fatiha. Fatiha salaatul Fatihi.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 فهو أصل الأصول والأنجال بين لم يصل نوره بعين إلهي